waaye ala kulli haal ma sànni ay baat rek ci sunu mbokk bi oustaz Ahmad Diop hafizahullahu waraa euh, vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla fay ko euh, ku baax la ku bëgg xam-xam la ku yiw la fan yële demoon na ba ay nit sax di ñu jaxase di wax yu bari waaye ala kulli haal loolu nit ñi di wax ñoom la engagé ñun moom islaam diine la boo xamante ni mën nañuy am wuute ci yenn masala yi walla yenn déggin yi waaye loolu mënul yàq suñuy sàppe ndax as sahabatul kiram noonu la mel gis ngeen ko ñëw na ba fii indi keesu tàndarma jox ñu ko vraiment yàlla na ko yàlla fay ngeen ngeen ñaanal ko yàlla ñaanal ñu yàlla seytaane yi dox ci diggante yi di di jaxase incha allah ñu ñaan yàlla mu musal ñu ci ñoom ala kulli haal ndax ahlu sunna la ci sunna laa ko xam loolu moo tax may fiir ci côtéem ci yenn yi bu amee ñi ma nekkal dinañ xam lu mel noonu moom it na mu mel ci man xam naa ko man ni ma mel ci moom xam na ko kon xamante nañ bu baax ala mais ñu ngi koy ñaanal yàlla ci geste bu rafet bii mu def vraiment geste bu noble la gest bu rëy la geste la boo xamante ne bu jara saluer la loolu it dina wane nag jàngkat yi boroom xam-xam yi duwaat yi day wane ne ñoom ñoo bokk ndey ak baay ndax seen objectif mooy nit ñi baax seen objectif mooy nit ñi jub seen objectif mooy nit ñi dem àjjana loolu rek moom la yonent yi doon wax wa ma tawfiqi illa billah yal nañu yàlla defal nasru tawfiq salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu incha allah